discours bu le doon xaar effectivement am nekk discours boo xam bi bii li ñu yëpp doon xaar am na li mu am na ci mais par contre euh, ni ñu ko defee daal je pense que bu ñu ko mënoon a gën a xaw a dangal tuuti dana baax parce que bon mesure barrière déjà pour Sénégal respecteur déjà problème là. yaa ngi dégg bon bu le bon le déconfinement bon d'accord, accord war nañu ko def de façon graduelle mais surtout les luuma et autres là bu ñu ko ubbee yooyu yëpp des euh, lieux de propagation du virus de telle sorte que bon couvre-feu bi certes c'est bien parce que est nañ parce que n'y a ci période ramadan mais bu ñu ko 22 h 26 6 heures du matin gën deuxièmement bi e-, aussi pour nous, ça va être un problème xam nga le 2 juin c'est tout tout près bon est-ce que jël les mesures qu'il faut les mesures adéquates pour pouvoir accompagner ces élèves qui vont retrouver les qui vont retrouver l'école C'est un problème là. nañ médecins nañ médecins hmm? Les médecins yi qui ont le ñu def ko parce que set euh, l'islam sax da ko jëkk bëgg parce que wala nga julli da ngay jàpp jàpp li waral ñeenti waxtu yëpp da koy jàpp bala nga julli da ngay set doo ànd ak euh, dara ci salte euh, comme yàlla da ko bëgg l'islam soxla ko noonu baax na. mais yaakaaroo kaa yi gën bu ñu mën na bañ a bëri sax buñ dee moytu rek nañ fagaru rek. xam nga moytu boo moytoo mën na am kaa yi du bari waaye li li koy yokk mooy ñàkk moytu waaw ñàkk set ba raxas say loxo set di dóoru masque hmm? li euh, médecin yi santaane ñu wax ko ba bañ jegeñe di euh, fagaru daal waaw loolu loolu buñ ko defee yàlla mën nañ ci dimbali globalement mën na am ay conséquences yu mu jur mais néanmoins aussi da ngay da da ngeen di comprendre que ni quelqu'un qui veut gérer du la population contre lui mais je pense que ni avons des décisions qui peuvent discuter aussi c'est discutable ne veux pas ko des pression mais aussi xam nga que pratiquement ce jël yëpp wala boog yi ñuy jël yëpp bu si nekk demande forte parce que au-delà de

wóor na ma ne lépp loo xam ne jël na ko rek dafa yaakaar ne moo gën ci réew mi ñu ñu wax xam ne suñu njëriñ ak suñu kan moo tax ki jël li mu jëf boo xamee lii nag doo ko fankatal man mi bu ma xamee ne bu ma defee lii du sotti te fekk na Macky wax ne du bu ma demee maa tooñ suma boppa waaye war naa fexe ba li Macky jëlal réew mi rek ma di ko dunda ba mu amar yow ma jëm na ko waaw waaw li moo taxoon kat mu jël ko parce que wóor na ma ne intention am c'est magnifique mënul nekk buur di ya di di di jël loi bu yàq rek ah, ah waaye comme nii la ko gisee ak conseil ñu itam na du ñu ne sax ñu juga dugg ci loolu ba dem ba seet fi muy mujjee.